Ngagne Sène ak seen kumpa Ngagne Sène moo ngeen moo ñuul li daw na jëli tànk seen kumpa ba seen kumpa mu ngay résister seen kumpa est-ce que da nga ca génn seen kumpa da ngay wër foo daanu seen kumpa daanu na Ngagne Sène jël na tànk ba coppet seen kumpa résister na ba waaye finalement da ngay àgg teer mu ngi noonu moom Ngagne Sène fële ca wàlla Tony Junior mooy waaj sëgg